Euh, tur bi Serigne Abdou Khadir maanaam euh, nekk membre ci wàllu organisation bi maanaam jëm si base bi nga xam ne maanaam mooy journée le 19 janvier di maanaam màggalu tuuba Diokul maanaam euh, ñu ngi nii ci journée bi maanaam guddi gi nekk nii ci cérémonie officielle bi Ada instant bi manam fas yéene par exemple doxal li def ci guddi gi waaw mën a wax ci wàllu organisation est ce que yomb na ngeen organiser lu mel ni fii waaw maanaam su ma nee organisation bi maanaam yombul woon parce que déjà maanaam ku wax wàllu organisation rek di nga xam wax wàllu maanaam membre bi maanaam nombre de personnes yi maanaam yi nga xam ne ñooy war a gérer wàllu organisation bi ak par rapport ak maanaam gi nga xam ne maanaam possibilité bi par exemple ak disponibilité bi parce que que yombul nga bàyyi si ay gan seen biir kër yooyu noonu ñëw fanaan ci baax bi yendu fi deuxième jour aussi nga war a pare war a terminer yooyu noonu ainsi de suite euh, boo xoolee lu mel ne affaire rajo yi maanaam xaw na yéex a ñëw maanaam rangement siège yi aussi maanaam xaw nañ cee néew doole mais alhamdulilah dans l' ensemble euh, terminé na si jàmm quand même. donc si financier ak matériel a wàllu jafe-jafe bi moom maanaam euh, amu si parce que maanaam man na ne mbiri sëñ Tuubaa amul tànki ginnaaw te maanaam li ngay maanaam li ngay li ngay li ngay xalaat ak par exemple maanaam la nga ci am lu kawe sa njot par rapport ak li nga doon yaakaar parce que tey jii nii ni au début dina xaw a metti mais boo demee ba ca ci pandaw ga rek maanaam day taw feexe parce que mbiri sëñ bi moo demee noon donc après après cérémonie officielle xam lan mooy xew après euh, après cérémonie bi maanaam programme bi mooy continuer parce que boo xoolee lu mel ni maanaam Nourou Daare ni daayira Touba Nourou Daare ni mooy moo ëmb lëkkale ñetti dëkk yi maanaam moom day continuer maanaam wàllu durus xaside yi bu mu paree ci wàllu durus xaside yi aussi am na sëñ Modou Mbolo maanaam euh, moom moo yor wàllu Sikarulla sëñ Modou Mbolo dina fi jaar bu Sikaree pare aussi kuréel Nourou Daare ni bi moom dina continuer liggéey bi kuréel xasida bu paree aussi tamit noonu lañ ko defee processus jàngkat yu ndaw yi kewe bi nga xam ne moom mooy fanaanoo bis bi loolu daal moom dina fi jaar. ñu bàyyi la nga tàggatoo rek hmm? si kanam. waaw di gërëm ñëpp euh, dina la ñaanal yow borom kii bi comment dire cameraman bi suñ borom maanaam fi cameraman yi di mag yi toll suñ borom may defal la lool maanaam defal la matériel yu taw feexe ba nga bokk si ñi gën a taw feexe ci Sénégal la lay ñaanal en de moo merci jërëjëf. mënatuñoo fàtte kenn. waaye lool du tere ñu am ay nit yu ñu jukki ci mbooloo mi tudd seen tur dénk leen nuyoo bi ndax ñu mën koo séddale mbokki jullit ki ñuy jiital ci nuyoo bi mooy suñu maire de la commune Fallou Fall ñoo ngi koy jox nuyoo bi mu teg ko ci loxo Mamadou Diop le parrain du jour mu séddale ko mboolem seen autorité politique ou responsable politique bu fi teew waaye beneen nuyoo bi dañu koy jox Serigne Fallou Fall mu jottali ko kilifa diine yi fi teew yépp bu ma ko joxee ñaari nuyoo yooyu nag dama leen di fàttali la mu waxoon ci première édition moom moo waxoon ne buy ñëw jokkul day ñëw en tant que maire day ñëw en tant que waaye day ñëw en tant que doomu jokkul loolu moo tax mu yell ci jëmmam ma dénk ko ñaari nuyoo yooyu mu jottali ko beneen nuyoo bi dama koy jox docteur Ndiaye docteur Diaye mi nga xamné ci mom lañu xamé lan moy engagement communautaire ci mom lañu xamé lan moy engagement citoyen ci mom lañu xamé lan moy engagement tout court dinañ jafe tay nga interroger fi ben mu wax ba agal te waxul lu mu déggé ci docteur Diaye loolu nag li koy waral moo ñu formé docteur Ndiaye moo ñu formé moo tax man mii ngeen di dégg tey maa nekk ci waxukaay gi waaye ndekete yoo docteur Ndiaye ci boppam mooy wax ci man kon ñoo koy jox néew bi mu jox ko tous les anciens ñu xàmmee ci suñu papa Abdoulaye Gueye mi nga xam ne man moom laa tuddee le véridique kooku lu mu la wax ñëwal fii ma waat ne dëgg la waaye ñu xàmmee ci suñu papa Daouda Ndiaye Daouda Ndiaye mi nga xam ne ci wóor lañ ko xamee ci maandu lañ ko xamee ba nga xam ne ñi mu bokkaloon association bi waxoon nañ ni buñ ko dénkee sax xaalis bee yañ ko joxoon buñ ko laajee du ko changé foo noonu nag mooy nit ku wóor moo tax Pape Saliou mi ñu àndal liggéey bii jaaxaluñu ndax Pape Saliou doomi diw la te doomi diw ak diw diw rekk lay doon moo tax Pape Saliou jaaxaluñu ñoo koy ñoo koy nuyu bu baax a baax waaye ñu xàmmee ci keneen ñu xàmmee ci suñu papa Meysa Ndiaye di ñaan suufu Touba sedd ci koom defe naa buñ leen ne kan moo gën a bëgg jokkul ci jokkul waay na ñépp fóonandoo suuf ndax ki leen gën a bëgg jokkul moom ci biir suuf tey ki doon jox ay guddeem ak ay bëccëgam yépp jokkul moom ci biir suuf tey ki nga xam ne nii jokkul rekk moo ko ñoroon kooku dem na tey defe naa bu ñu fàttalikoo histoire benn yoon rekk la masa teg jokkul lu ko naqari mooy bis bu mu dëddoo àdduna benn yoon rekk la masa teg jokkul lu ko naqari mooy bis bi mu laxatoo te benn yoon boobu la jokkul gépp jooy te may sa njaay àndu tut ñoom jooy jour boobu rek la ma sa am kooku ay guddeem ak ay bëccëgam yépp jokkul la ko joxoon waaye ñu xàmmee ci suñu papa papa njaay njaay mi nga xam ne man damay yàkkamti message am wàcc ci groupe bi ndax heure boo tijjee message bi ay wax yu rafet rek nga ciy gis donc docteur Ndiaye nuyoo baa ngoog nga séddale ko ancien yooyu yëpp di wax ne jikko yii ma leen waxal moo tax association am résultat yi mu am ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax beneen nuyoo bi dama koy jox suma mag suma xarit Ousseynou Sène maa ngi koy nuyu bu baax a Hussein Sen, c'est l'incarnation vivante de la modestie modestie moo tax que ma c'est di wax heure bu jokul ndax tartar heure bu yu ndax souffrance heure bu ndax mettit gisul monsieur le maire gis Limay wax

moom dafa teel a xam ne jàppale jokkul mooy jàppale sëñ Cheikh moo tax lu ma dugg mu dugal ci loxoom maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu bu baax baax toute la jeunesse de jokul ñoom ñi nga xam ne tey jii fi ma toog ñoo ma fa teg di leen wax ñu ndax seen yaay jii di jokkul seen baay bii di jokkul yéen rekk la yaakaar ci développement te bu leen di yaakaar day soxla yéen bu ngeen di ñëw ci moom ngeen takkoo doon wenn say mu am bañ a am boddante ngeen bokk ndey bokk baay di yëkkateendoo di tegandoo monsieur le maire di ma abal sa waxu daaw ji ma waxaat ko yàlla moo leen digal ngeen booloo mu tere leen ngeen tàqalikoo moo tax ba nga ko waxee ba pare da nga ci teg aaya ba waxtasimoo bi abdillahi jamian wala tafarraqu defe naa li ñu bëgg ci mbooloo rekk la mën a nekk ndax bu ñu booloo dañuy am doole waaye bu ñu tàqalikoo dañuy yonjox te suñuy force day dem loolu ay waxu monsieur le maire la kon ñogi wo jeunesse bi yépp ñu bokku ndey ak bàyyi bokku défar jokul parce que jokul gi defe naa extra test du wàcc di leen ko défaral yeen yeen a koy defar ba ñi leen ci fekk fekk leen ci donc nuyoo baa ngoog ñoo ngi nuyu ñépp bàyyiwuñu kenn waye lima ci wax moy UGEDIV nous union des jeunes de Diokoul et de villages environnants li ko taxoon jóg ay jàng ci la waaw ay Serigne Touba Ben perle la rek ci chapelet de projet qui ñu am ci biir dëkk bi te war ko réaliser li ñu développement local mo am ay projet yu bëri yo xamné ñu ngi jokul fi diñu xaar bi ci njëkk nga xamné mom la massa wax ni moy le premier et le plus important des projets moy problème ndox mi jokul problème majeur bi mu am problème bi nga xamné boko régler daanaka régler nga problème yépp ndax moo nekk la racine du mal mooy problème mu ndox ñi nga xam ne yàlla dafa dogal ñu nekk ay étudiant nekk université di def biologie wala ñuy def philosophie dinañ mën a comprendre lii may wax ñàkk ndox ci jokkul jur gi ñoo ko a xam nit jo ñàkk ndox gi jur gi ñoo ko gën a xam nit di ngay romb jur gi ñoom ñu lay expliquer ñàkk ndox gi jokkul ñàkk ndox li may wax du comédie science la parce que communication du nit rek moo ko moom la communication n'est pas seulement langagère la communication est aussi gestuelle da ngay romb ak jur ju lay wax ne jokkul gi dafa manqué ndox kon nag ku ñu bëgg dimbali da ngay am ndox do devena naa ku dimbali bañ am ndox règle nga problème yi jokkul yépp ndax bu ndox amul santé du am bu ndox amul jàng bi du normal motax ndox moy problème majeur bi nga xamné mom la jokul am dis nag def na ci lim man lépp mooy fexe na ba plonger ay pompe ci teen bi waaye loolu réglé wu tan situation bi motax ñu bëgg ben forage bo xamné moy alimenter ñetti village ñetti village yépp ce que bëgg monsieur le maire ñoo ngi xaar bu baax baax mu ci autorité politique yépp ngi autorité administrative yépp ak bonne volonté yi problème bi nga ne le problème majeur mooy problème ndox donc mais am na yeneen projet yoo xam ne ñoo fi nekk mooy kër sëriñ Touba bi ma leen doon wax daaw kër sëriñ Touba bi daaw bi ma ko waxee ba ren ba léegi terrain kese la te contradiction la ñuy waaj bis bu toll ni sant sëriñ Touba def ci ay millions. tuddee ko sëriñ Touba te këram gii defuñu fi benn brique loolu contradiction la defe naa bi ñuy waaj sant sëriñ Touba bi kenn ku nekk defar na këram ba mu jàkk kenn ku nekk def na ay dépense pour ak accueillir ay ganam boo xoolee liñ ci def ay million yu dul jeex la te ba léegi teguñu benn brique ci kër sëriñ Touba. Lalu contradiction la kon mbokk jullit yi dama di wax ba pas-pas bi def ba taxawal bis bii ci def ba taxawal bis bii détermination bi ñu àndal buñ ko Bela ci kër Serigne Touba gii balaa déwén duñu ci ay école kon dañ koy def ci buntu dañ koy def ci biir kër Serigne Touba donc may sàkku ci rek ñu ci xel xam ne lu mën a nekk la ba nga xam ne déwén bu ñuy accueillir gan yi ci kër sëriñ Touba lañ koy accueillir loolu mooy loolu mooy dëgg beneen projet bi nga xam ne bu ñu jógee ci kër sëriñ Touba moo ci topp mooy problème mu santé waaye problème mu santé bu ñu koy wax ci jokkul. suñu xel day dem ci case de santé bi nekk jokkul njaaligi case de santé bi comme ni ma ko waxee woon daaw en terme de construction presque pare na maternité bi pare na infirmerie bi pare na li ci des rek mooy ñu équiper ko en terme de matériel aussi am nañ fa ñaari table de consultation am nañ fa ñaari table de bureau am nañ fa quelques lits d'observation waye lool rek doyul biñu wax case de santé équipement bi motax donc dañ ko wara équipé équiper dañ ci wara ay médicaments pour que buñu ñu faju dugg ci case de santé bi faju ñi may àndal souvent dama leen di tooñ dama leen di wax ne nañ ko tudde case rek ba mën cee dugg faji soog yokk de santé ndax boobu ba léegi mën a kuñee mën guñ cee dugg faju te war nañu góor góorgóorlu nag àggale bâtiment yi équipé ko ambulance bi daw pour que bu ñuy fajoo ci mën a dugg ci case de santé bi faju donc ñu ciy xaar

jotaguñu ci courant bi jotaguñu ci ndox mi ñu wara def nak li tubab di extension moy fexé bañu ñu jot ci courant bi fexé aussi bañu jot ci ci ndox mi loolu monsieur le maire ak autorité ñoo ngi leen ci xaar bu baax a baax donc ma ngi pour leeral len ne leen UGDIV du bisu sant Serigne Touba bi bis bu ñu fonk la waaye nag projet yi ñuy xaar bari na donc ñoo ngi ciy xaar autorité yépp ñoo ngi sant suñu jigéen ñi nag di jox cant gi suñu tànt Ndey Diop mi nga xam ne yaay faal boo xam ne fépp fu ñu taxaw rek moo nekk suñu ginnaaw dooleel ñu yaa ndey Jóob maa ngi lay jox nuyoo bi nga jot li ko mbooleem jigéen ñu fi toog di leen sant di leen gërëm di leen massawu baax coono yi ndax xam nañ bu baax li ngeen daj ci bis bi xam nañ bu baax coono yi ngeen ci yi ngeen ci yi ngeen ci jànkonteel ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal ñépp ñu fi teew di sant di nuyu nag suñu sëriñ maa ngi koy bëgg a fàtte sax mooy sëñ Cheikh sëñ Cheikh maa ngi lay wax ne yow jokkul gépp dañ laa fonk jokkul gépp dañ laa jox cër jokkul gépp dañu yaakaar ci yow moo tax ma bëgg man mi nga xam ne man la jeunesse bi am yaakaar ci man ba teg ma ci bopp bi ma bëgg lépp lu may duggati nga digal ma ci ma def nga tere ma ci ma bàyyi loolu maa ngi koy sàkku ci yow bu baax a baax a baax te bëgg naa lu ma duggati nga wax ma nga jox ma ci conseil pour que ma xam bu baax a baax fan lay teg samay tànk donc maa ngi jaajëfal ñi fi teew ñëpp di wàcce kàddu yi comme guddi na di ñaanal ñëpp jàmm ange billah bismillah inna waliyallah wa ma tawfiq illa billah barkeb sëriñ Saliou barkeb sëriñ Saliou barkeb sëriñ Saliou wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziar leen jox seen wàccuwaay waaw li waral may séddale café gi ci biir baas bi ak di ko defar rien que pour bëgg ngërëmal sëriñ Touba ak bégal waa jokkul te xam ne filaa laa juddoo fi laa yaroo fi laa màgge jànge lépp lu ma am jokkul la lépp lu ma mel jokkul la kon lépp lu ma am tamit jokkul laa koy def ñu tànn ma ci tànnuwaay bi ndax bari na fi lool ñu tànn soxna Jaara Njaay jagleel ko wàllum kafe gi ak meew bi ak was bi moo tax ñu jël suñu yitte lu ñu am ak lu ñu amul lu ñu mën ak lu ñu mënul yëpp ngir bégal leen ndax day nga jàppanteel ay waaw du ci ñàkk surtout suñ ñun wàllum soxna yi des fois nga dugg ci ñoom ñaa bu ma takkal bu ma taasal waaye loolu yëpp taw feex la ndax képp koo dajeel ak nu mu mënti mel da nga koo war a accepté fois nga gis nit nga jox ko mu bëgg wala mu bañ lépp rek da koy accepté parce que yow yaa bëgg ngërëm te ku bëgg ngërëm faaw nga jànkonteeg ay jafe-jafe. kontaante ak mbégte ak mu doon ma neex lool. loo xam ne dama dama dama cee bëgg trop parce que daf maa neex ma jaayante ko ngir jëmmi Serigne Saliou te defuma ko tey kase ñëpp xam ma ci looloo tax su ma koy def sax damay ànd ak mbégte bu baax trop sax. Mhm. donc ñu gis euh, tey moom dafa nekk cas boo xamante ni c'est extraordinaire. ndaxte bis daaw moo nekkoon première édition ren moo nekk deuxième édition mais ren dafa extraordinaire nu mu mel ren dañuy ñaan suñ boroom mu gën a neex gën a taw féexe ren moom dañoo kontaan ndax cérémonie bi neex na neex boo xamante ne am na mbooloo boo xamante ne nii daaw melul woon noonu. non guddi gi dallu amul dallu dañuy fas yéene di séddale di séddale ba keroo xaadim kebe naan jërë ngeen jëf. du tey kase dama ko faral ça fait dix ci ren ma koy def ah fukki at ci ren. waaw. jërëjëf ma bàyyi la nga tàggatoo sànniwaale li ma ciy sànniwaale mooy ñu gën a jàppante gën a góorgóorlu gën a liggéey Serigne Touba te xam ne xam ne leneen nekk fi lu dul liggéey Serigne Touba lépp lu waay di def te def ko ngir Serigne Touba di nga ci am ngërëmam lépp lu waay di def te def ko ngir moom kese bañ cee xool dara di nga ci am ngërëmam kon lépp lu ñuy def nañ ko def ngir Serigne Touba te bañ cee xool dara ndax Serigne Touba amul tànki ginnaaw tànki kanam rek la am mhm. ok jërëjëf maaleykum Touba jokkul bànneex maa leen gërëm di leen baal àq di leen baal àq li ma doon ci bis bi nag bari na lool. ndax du laa juddoo. fi laa yaroo fi ne nekk itam yàlla dogal it ñu def ma lim boo dem ku di yaay faal ci dëkk jokku Touba jokku ñëpp ci sama ginnaaw la ñu topp may ñu gis ni ñu ngi ñu ñëw officiel bi waaw ñu gis suñu yaay waaw ñëw toog teewal ko ban yëg nga am man yëg damaa kontaan ndax woote ñëpp wuy si la da ngay kontaan kontaan naa ngi sant yàlla di sant yónnent bi di sant Serigne Touba nii nu fi defee ren yal nañu ko def bu nëgëni déwénee te ñëpp fekk ko total ko ndax moo leen gune muy mag muy ndaw ñëpp wàcc nañu seen itte ñëw obligé wu ci bis bi kontaan waaw. ñu ngi sabale. wu. waaw yan conseil ngay jox xale yi nga xam ne ñoo waral lii. conseil yi may jox xale yi. waaw. ñëw leen. dama fee nekkal. yi may yi. Baye Abane Ndiaye. dama fee nekkal. ñoo ngi lay sant bu baax. doole tuut tànk. ñoo di sant Serigne di sant di di jubóo di di xàccandoo di dóorandoo. di ma bëgg xale yi nekk. kontaan di def ni noonu xale yi fi ne ni ñuy def ñu def waaw. lan la a wax bi lan moo nar a xew tey. lan moo nar a xew tey sañ sa yu rafet bernde yi dina doy añ nañu ba suur dinañu reer ba reer sañ sa yi dinañ rafet jàmm ji dinañ fi ne dinañ sant Sëriñ Tuuba ànd koog Baay Faal yi ak Yaay Faal yi. boo amoon ñooy gërëm si bis bi tey lan lay doon. ñi may si bis ñu gërëm ci bi dafa bari limal ñenn rek ma lim ñenn maa ngi gërëm Xaadim Njaay sama doom maa ngi gërëm Serigne Diop sama doom maa ngi gërëm Serigne Fall Njaay borom sécurité bi maa ngi gërëm Bas Njaay maa ngi gërëm Mamadou Diop gille ngoone ma ca Poul mi ñu tuddee bis bi di sama rak di sama xarit di sama kóllëre waaw maa ngi gërëm jiite ñu gee nekk maa ngi gërëm Satu Ndiaye ñi nga xam ne ñoo doon yaay faal topp sama ginnaaw te bi ma xuñu ma di ma xelal di ma dolli te mag laa ni ci seen biir ñu di xale maa ngi gërëm na koy géej maa ngi gërëm mbeen ñaar te jokkul euh, Touba jokkul ngay xeer ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen mas sa coono ah. mbooleem koo xam ne teew nga ci bis bi daal ah. te di yaay faal ah. mbaa ngay bàyyi faal maa ngi gërëm ñëpp yal nañ fa teew na gëni déwén te na gëni ren bii na gëni déwén bii ñëw dàq na gëni ren nu fekk ko tatal ko dara ko fekkee yow doom kenn gënu la ndax maa ngi moom boo koy tette di ko di ko tere te wax dafa jafe ah jërëjëf yow itam koo bind kon liggéeyal Sëriñ Touba mooy ngën ci gàllaaj gii ñot yiw mooy ngën ji gàllaaj gi jiñ fitna di nuyu nag sama mbokk mi ngeen tudde bis bi muy Mouhamed Diop ma xam ci moom lu bari xam ci moom Pastef ci jokkul xam ci moom pastéefam ci komin bi waaye di nuyu ñi fi jël kàddu yépp sëriñ Bachiru Njaay ak sëñ Diop ak sëriñ Cheikh mi mujj jël kàddu gis ngeen nag Serigne Cheikh nenek na at mi génn dafa amoon ngànt dëgg la amun naa ci dara waaye at mi amul ngànt mu ñëw teew gis nga bu teewul woon dinañu ko ndax Serigne Touba dafa am lu ko ñor itteel ko ba mu ñaan ko yàlla wax ko ne ko ijaalil muridina maan fi xisbika alxasini wa samlaj maa gis nga ñaari murid waxuma ñett ñeent juróom waaye ñaar rekk fu ñu nekk te nekkuñu benn war nañu xoolaat seen bopp parce que am na ci ku bokkul ci murid gi parce que Serigne Touba lu mu ñaan yàlla yàlla def ko te moom ñaan yàlla yàlla dajale taalibe yépp def ko ci tataam moo ñaan yàlla yàlla booleel ko mbooleem taalibe yi ñu nekk benn taalibe murit bi bu gisee taalibe murit bi ca Amérique mbaa ca France mbaa ca Italie def na ko ni boppam kon sëriñ Cheikh bu nekkee ci njaaligee wuutu sëriñ Aliou njaay di doomu njaaligee di doomu diine lii mu def dong la war a def waaye yéen itam delloo ngeen ko cër bi ko yàlla jox yàlla bu la joxee cër boo ko joxul boroom it yàlla moom da ko koy jox boo nangoo jox ko ko nag yàlla gërëm la kon sëriñ Cheikh yal na la yàlla dëgëral yàlla na la yàlla taxawu jokk la ngi nii man jokkul tout court lay wax jokku la ngi nii sa jokkul la loolu la xaadim wax nee na sëriñ ji li ma nga njuufeen sëriñ Isa ma nga Puufoon sëriñ Xaadim ma nga Taif sëriñ Fàllu ma nga Nduuf waaye yow yaa nekk jokkul waa jokkul itam jox nañ la cër bi nangul nañu cër bi la yàlla jox sëriñ Cheikh sëriñ Cheikh sa liggéey sa taxawaay mooy fexe ba jokkul nekk benn parce que loolu la leen yàlla digal tere leen ñu teqali ko te yow dëgëral ndigalu yàlla rekk nga fi nekke dëgëral kàddu yàlla rekk nga fi nekke sa yoon nekkul ci aada parce que aada am nañu la ci mag waaye diine yow la ko yàlla dénk maa ngi sant nag bokk yi fi teew yépp gis nga ndajeem murit boo ko wootee Cheikh Ahmadou Bamba teew parce que Serigne Cheikh a ngi teew soxna Abe ngi teew kon Serigne Touba ngi ci tànt bi Serigne Mandoumbe teew Serigne Mbacke Bousso teew lamp yi Serigne Touba sampoon jox leen ngërëm teew mais booba daje mat na amul daje bu mag seen daje bi amul daje bu gën a dëgër seen daje bi ndax sëriñ Touba mi tax ngeen di ko def teew na sëñ Mbàkke soo mi ko doon taxawu teew na sëriñ Mandumbe mi doon dundal njaboot gi teew na làmp yi sëriñ Touba sampoon ci réew mi teew nañ kon war na noo mën a ànd nun ñépp sant yàlla yàlla nag li mu ñaan sëriñ Touba li mu ñaan yàlla digle ko fokk day am ku ca jëkk sa tànk nag jëkk ca yiw wa ku ca yéex a ñëwit rëccu ñeel na la boole leen seen bopp yonent bi yàlla yónni ci nun nee na mbooloo yërmande yàlla la te lu ngeen gën a booloo gën a am njariñ lu ngeen gën a booloo seen force gëna dëgër waaye bu ngeen teqlikoo rekk yàlla nee na fa tafshalu wa tazhaba rixakum da ngeen di esek seen kàttan day dem dootu leen am kàttan kon maa ngi sant bu baax maa ngi gërëm bu baax man nag jokkul laa dëkk moor nduuti mi ci daaru gii moo jur Fatim Penda mu meññ ma awma feneen fu ma jëm awma feneen fu may lijjanti fu dul dama lijjanti jokkul ba pare parce que loolu la loolu la yàlla dogal kontaan naa ci lool nag bég naa ci lool am naa ci fierté lool ci bokk ak yéen dinaa leen gërëmit parce que dama gis commune bi nga xam ne moom laa jiite sama kër ndey fab seen loxo def ci commune bi def ngeen seen loxo ci case de santé bi ànd na mag yéen def loxo ci armeel yi waaye bërki démb rekk def ngeen seen loxo ci làmpi dëkk bi ma ñëw taxaw ngay a xeen Mamadou wan ma làmp yi lépp leer mais jàppale ma nag na fekk nga jàpp ca yéen jàpp ngeen loo xam ne ku ñëw fekk si leen jàppale leen itam daf leen a jàppale waaye yéen a ngi woon ci yoon wi Eh, Cheikh Ahmadou Bamba ndox mi waxoon nga ko mu dugg ma lool ñor jël entreprise andi ko pour gas forage bi maa ngi nuyu sama mbokk chef de village de jokkul njaalige ak chef de village bu jokkul bànneex maa ngi leen di nuyu moom mii laa fa fekk keroog ñu ànd wër pour ma gas ci jokkul mais xam ngeen ne forage dafa am ay technique mairie dafa am ay techniciens yu muy diisool hydraulique daf ma wax ne ma naa xaar ba 2004 ma organiser ndox ndox mi bu jokkul amul ndox ma door a gas forage bi Mamadou Diop mi fekke na bi ñuy wote budget bi pare na pour gas forage ci jokkul parce que jokkul bu amul ndox man sama kër ndey amul ndox loolu moo tax bàyyi naa ci xel bu baax a baax waaye seen jàpp gi ngeen jàpp nag di jéem a defal seen bopp ba noppi di diis seeni autorité lu am solo la dëgër leen ci bu soobee yàlla xaalis bi moom génne naa ko ba denc ko pour ñu gas forage jokkul techniciens yi rek lay xaar ñu ne ma ay ca ma gas ko ci 2004 bi 2024 bi loolu la yàlla dogal bu soobee yàlla su suma technicien yi mayee ordre rekk dina dal di gas forage bi loolu waxtaan naa ci ak du Diop ba tey kon nag suñu xel mën naa dal ne bu ñu gasee forage bi courant moom am na dinañu ko mën a dal di mu jox ndox ñetti dëkk yi kon maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm courant bi nag xam nga jokkul am na courant bokk na ci dëkk yi njëkk a am courant ci commune bi moo njëkk a am courant sax chef-lieu bi xam nga def excitation te dëkk yépp amagul courant loolu mën nañ la ca jam waaye fii ma toog di wax ak yéen Senelec mi ngi ci biir commune bi te balaa génn commune bi daa daj ki démb la ñëw ma installé ko Jol Njaay yaakaar naa feek ñaari fan Jol Njaay dana yegg su yeggee mu dem Jol daqaar su yeggee mu dem Mbadiane su yeggee mu dem Ñaama su yeggee mu dem Bako su àggee mu dem njaar ga su àggee mu dem ndimb Mathimbane jàpp naa ne balaa février de commune bi dana daj ak courant loolu nag dama koy sant yàlla parce que réew mi mu ngi ci 62 pour cent ci taux d'électrification rurale kon bu ma avisaasee àgg pour cent war naa ko sant yàlla sante ko Serigne Touba parce que ñoo ci jàpp. léegi nag bi foofu àggee xam ngeen ne nduuf laaj na excitation jokkul laaj na excitation kaba laaj na excitation waxtaan na ci ak PUDC ba jox nañu ma seen kàddu ne dinañu ñëw natt ko pour def excitation bi loolu nag Cheikh Ahmadou Bamba interpellé bi ma interpellé moo tax ma wax ko waaye waaw njee ci la bokk waaye ñëwuma fii pour politique de ñëwuma fii pour en tant que maire de dama ñëw fii en tant que doomu jokkul bokk ak yéen jokkul ku ma gis jokkul rek jàpp naa ne sama doomu ndey nga jàpp naa ne sama doomu nijaay nga jàpp naa ne sama sang nga yàlla nu yàlla dimbali yàlla na yàlla jëmale bés bi ca kanam te mu bañ a dellu ginnaaw te loolu la yàlla di def ndax sëriñ Touba amul tànki ginnaaw kër sëriñ Touba gi ngeen di wax itam yàlla na leen ci yàlla fekk jàppale leen waaye jokkul am na kër sëñ Touba de kër sëñ seex mii kër sëñ Touba la parce que ku ñëw ci dëkk bi laajte cheikhu murit bi fa nekk ñu joxoñ la ko boo demee mu génn néegam jox la néeg ba kon nag yal na leen yàlla dimbali ngeen amaat ñaareelu kër sëriñ Touba yal na leen yàlla dimbali ngeen am néegu yàlla ca kër sëriñ tuubaa sëriñ Touba nag danga koy tàmbalil mu yeggale xam ngeen ne nag ndongal murit la te moma gënal luma am serigne Abdul Hakim dafa yonne ci man nema serigne Cheikh dana ñëw waye bu dikke bu mu wax. salaamaaleykum maanaam Malick comité d' donc tey est ce que bu ñu defee lu kon ren mel ni yomb na yombul mais comme ni ñu koy waxee mbiru Sëñ Tuubaa amul tànki ginnaaw tànki kanam rek la am moo tax ñu ànd koog suñu mbokk yi suñu mag yi suñu papa yi suñu nijaay yi loolu moo waral bis bi yomb ci ñun lool waaye ci lool bu amuñ ci benn jafe-jafe ba lépp luñ ci bëggoon rek di ci gis loo xam ne day kawe suñu njort. gis

ñooñu nag ñu yàgg lañ ba lépp loo xam ne ni am na réussite ci dëkk bi ñoom ñu béy ci seen waar ñun tamit ñu dem ba màgg xam ne loolu war nañ cee mën a béy suñu ñu jël relève bi loolu moo waral cant bi dudd ci waaye cant bi rek taxul kuréel gi ànd mais nag cant bi dafa nekk loo xam ne ni ay murit fu ñuy nekk dañuy war di sant sëñ Tuubaa parce que dañuy wax sëñ Tuubaa boo ko santee mu dolli la boo ko ñaanee mu dolli la

wàllu doole dañ koy joxe ñi mën a joxe seen participation ci wàllu xel dañ koy joxe parce que suñ participation nekkul financièrement rek parce que am na koo ni mën na la jëriñ xel am na koo ni mën na la jëriñ doole am na koo xam ni mën na la jëriñ financièrement c'est la raison pour laquelle vraiment mu yomb torop amuñu ci benn problème financièrement amuñu benn problème am ay nit ñoo xam ne ni aussi ci côté bu nekk gox bu nekk la ñuy jóge ñetti quartier yi di ci jàpp lépp lu ñu man nag pour que bis bi am réussite totale à cent pour cent loolu moo ñu wax

côté bi nga xam ne nii jàppal nga ne man nga faa dimbalee mbooloo mi nga ne man de bëgg naa jàpp ci côté bi ñii ci wàllu café bi ñii ci wàllu waañ bi ñii ci wàllu bâche bi ci wàllu collecte de fonds bi loolu moo waral ñuy xàccaloo di dóor ñu am problème ci benn côté parce que ñi koy def ñëpp dañ koy def avec cœur ouvert du kenn koo xam ne dañ lay wone def nii mais dañuy nekk loo xam ne ñoom dañ koy def te yàlla rek tax ak sëriñ Touba ak bëgg seen dëkk daw loolu rek moo ko waral. Euh, waaye ñoo def mbooloo. ndax maire yi ñoom ñoo initié jàng wala ñoom xam nga dañuy wax ni mooy doole te ku nekk xam na ne ñun kenn mënta dem sans jigéen parce que ñun boo gisee ñoom force am doole ñoom jigéen ñi ñoom la parce que ñoo ñuy dooleel. di ñu gën a yokk courage di ñu yokk loolu moom boo gisee seen teewaay nekk fii en plus wàllu organisation góor kese mënuñu organiser parce que jigéen ñi ñooy nekk ci kër yi ñooy recevoir gan ñi moo waral ñu ñëw nga leen gis nii ci cérémonie officielle buñ demee defaraat reer yi ci kër gi toppatoo gan yi sañ sa def seen i ñëw toog

plus les bonnes volontés. ok boo amoon lay tàggatoo ak waaw bu ma amoon lu may tàggatoo ak lu may lancer jeunes yi comme message mooy ñun ñëpp nañ ñëw xàccandoo di dóorandoo parce que mbooloo mooy doole. te yaakaar naa ñi fi jaar ñëpp ci cérémonie officielle bi muy kilifa diiné yi kilifa aada yi ñëpp firmé nañ né adduna mbooloo moy doole te sëñ Touba dafa wax ngeen ànd kon donc comme ñëpp dañuy ànd di sant muy ñetti commune yëpp suñu message moy na si leen yëpp ñëw ñu tout regroupé autour d'une table di xàccandoo di dóorandoo ba àdduna bépp di roy ci ñun ñun lool moy suñu message et lool moy suñu mébét ñun amaguñ une satisfaction à 100% bien vrai que neex na def na lépp ñun suñu satisfaction à 100% moy lan mooy ñetti quartier yëpp di xàccandoo di dóorandoo. ok nangu ko fédéré na fédéré sax parce que man mii di wax ak yow quartier bii laa dëkk muy Ndialigéey am na ñu dëkk quartier Ngaye Xeen am ñu dëkk quartier Baneex bien vrai que ñaari quartiers yi ñëw nañu à 100 pour cent quartier Ndialigéey ñëwuñu à 100 pour cent. mais loolu moo tax ñu ñu bëgg def tout pour que ñun ñëpp ñu nekk benn ensemble parce que bu ñu nekkee benn say dammuñu du yomb mais bu ñuy demandoo benn par benn bu ñu jaar mën na ñoo écraser te loolu la ñuy amu ci benn tolof tolof parce que yàqu sama benn relation aussi parce que loo man gis rek yoonu sëñ Touba aussi yo sëñ Seydina Mohamed sax bi mu xëyee woote ñëpp ñëw ñu ànd ak moom ah, mais à fur et mesure ñuy dem nit ñi di leen am di conscientiser wu dinañ dem ba ñëpp dañ ñëw regroupé autour d'une table te xam na ni incha allah dina am. waaw kon ñi ngi leen sant ñëpp di sant di leen gërëm parce que def ngeen seen déplacement bien vrai que bàyyi seen nit yi bien di sant di gërëm ñëpp te wax képp koo xam ni ñëw nga si na yàlla def lu kawe sa njort nga yokk ba yëg loolu rek mooy di xàcc loolu di doon